ça fait un bail. J'espère que vous avez passé un bon ramadan. Mais bal, n'y a pas de bal, n'y a pas. Tel est celui-là que vous donnez tous les alliés de l'hip hop Gassin. Avant tout, j'aimerais que vous abonnez sur la chaîne YouTube Gassin de TV. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche. Gars, go down, my nigga. Donc, vous voyez, on a fait ce bien ensemble. Il y a besoin de 4 jours, à 4 jours, il y a besoin de waaw wéri bi ba akat su bi dem naa gars yi xam nañ ko ñoo fi doon wéri ah ñoo fi doon fitirin ak Elmo Flow Elmo Flow tamit koo xam xam ne parcelle la dëkk mais sang bi boo ko dégloo dëgg bureau bi boo ko seetaanee sang bi boo ko dégloo da nga xam ne lii nii égo trip la quoi égo trip collectif quoi mais man dama bàyyi si ñaari couple laa gën a wax si ñaari couple couple xale yi ak couple élément xel ñaar quoi Yeah, boo seetloo oustaz moom daal moo ubbi moo gis moo ubbi sound bi di nga dégg moom muy teg génn beneen façon beneen air musical maa ngi koy dégg si sound bi dégg naa beneen air musical si sound bi yeah boo seetloo oustaz mu ngi teg si couplet bi mu ngi naan ñun kuñ toll duñ fayu quoi ñun kuñ toll duñ fayu quoi xam nga da ngay gis gars yi rapport booy yu bëri dañuy ñëw classe ba ak suuf xam nga and then you leave my guy and then you don't look up mà mu ngay def fii naan ñu buñ toll ñu fay baal nañ la xam nga nekkoon ci yooyu quoi baal nañ la nekkoon ci yooyu donc ñu ngi leen ñu ngi ñu ngi job seen job quoi nekkoon ci ay tonkante ak yu ñu noonu clash bi fa mais ñu ngi wane ne ñoom ñoo teg tànk bi biir biir galère design ñoo fi teg tànk te abadnaam dina leeral loolu noonu ba dégluwaatee bu baax mu ngi naan aka a sukki ak a bëri njaboot ni nga ñoo fi teg tànk ku toog quoi foofu noonu muy boobu mel ñoo fi teg tànk essence nii ñoom <laughs> loolu la seen bopp loolu la saa ak teg lii nii mais bref ba boo dégloo di nga dégg muy génnee benn air musical avant avant kii di ñëw xale di ñëw mais xale moom ñëwee dafa mettre les cases fële ngeen dafa traiter les cases yi bombardé ngeen yaa ba mu mel ay mesures yi trouble te é ngi naan ñooy jiite ñooy jiite ñooy nëmb fës ñooy jiite ñooy nëmb número bi ñooy diis ñooy jiite ñooy nëmb fës bi ñooy um foofu noonu ñu lay teg benn métaphore ñooy jiite ñooy nëmb fës bi ñooy diis quoi am ñoom ñu ngi si kaw ñoom ñoo ñoo raw ñu ngi saa si guerre bi am nga ñoom au dessus de tous quoi ñu ngi si kaw waaw mooy loolu mu ngi tolluwaat fii nii naan bu ñu fële teg fa tànk ñooy siis bu ñu teg fa tànk ñooy xam nga foofu noonu ni mu wane ne moom comme genre accès rek ak central amul boo nekkee zone boo mënee fii nii fii nii fii moo gën a neex si problème nag fii nii mooy waale wax ñu quoi fii dafay jox ay jeu rafet ay jeu rafet nee na ay raxas nañ fépp ñooy yëngal sa kóol sa kóol la du bu ñu ñëwul paaw la paaw la paaw la di fépp kaara bi tëb ay kaara bi tëb si kaara ñu soow kaara quoi saa jour moom dafa xaw a tar ba moom moo sax wax na lu ak quoi xam nga mais boo leen déglu sans ne ngeen gën di ngeen seetlu rek quoi di ngeen gis ni fii nii booy xale nekk rek benn jour moom rafet bu naaj ah boo déglu mu naan ay kaara bi tëb kaara ñu soow kaara quoi soow kaara mooy nekk PA gars yi boo seetloo seen logiciel moom da koy bëggee boo seetloo quoi seen logiciel da koy bëggee moom kañ la yor PA dafa jaay mais moom mënoo mooy bërëb waa affaire xam nga mënoo mooy bërëb mënoo mooy boo seetloo mënoo mooy bërëb mu seen xaw mu mënul wax noonu kooku mooy son kaar xam nga moom la gars yi naan waaw tëb laa mooy loolu noonu xam nga mais naa bu ma jaaree si loolu noonu damay dem si élément xel ñaar mais boobu dafa mun rab ñoo ko doon boobu dafa mun rab te sàppoo waaw déglu bu baax muy teg Then Canada first parcel kingdom Canada first parcel kingdom def seen drapeau yi ay king yi doom seen king yi doom foofu boo déggee foofu noonu am na ñaar ñaari jëloon ak bi ay ay réew yu nice nee def seen king yi doom seen king yi maanaam dañuy def doom après quoi xam nga intérêt loolu bëgg a teg fii jëloon moom bu rafet la mu ne marine rappeurs yi ak ling ngom ay crab def seen bopp yi jiñ crab xam nga ko crab si jël leen rek mooy crab yooyu bu màtte jiñ ko ak yooyu bu màtte xam nga ñoom ñaar ñu koy màtte crab day màtte jiñ ko day màtte n'est-ce pas suñu juumu léew yi war nañ xam lu wax <laughs> mu ne da nga tàmm toog tax ba romboo da nga tàmm toog tax ba romboo da nga tàmm toog tax ba romboo mënoo fi làggee it mënoo fi làggee it tànk bombo mënoo fi làggee it tekk bombo amul ñoom seen benn sang foofu dafa def it mooy wéeru bi boobu moo leen taal foofu noonu mu leen mu ngi métaphore bi genn genn ñu laa ko gaay naa mënoo fi làggee it tànk bombo xam nga mu ne joxal sa joxal sa paat joxal sa paat bii comme colombo boobu <laughs> gars yi c'est-à-dire film lañ nag <laughs> joxal sa paat bii comme colombo boobu <laughs> seen label mooy la seen label waa néegu la mooy label bi mooy label bi xew yaa loolu naa loolu la bu wax téeméer cent moom sori la fi seen jël mais sori dafa ñëw teg te affaire si aksi rek naaj te teg lu muy teg mu naaj quoi mais man ñaari couleur laa moom intéressé woon si cent bi xam moo tax mun na fii leen xew mun na nii ko day gën a jaar ñu gën a Luego, luego, tengo que dar una tarjeta de contemplación de TV. Luego, luego, aquí está.